toi euh, benn jour gendarmerie def perquisition trouvé ci ay libanais parce que dañuy 650 millions du 550 millions tey damay def révélation fii xam nga xaalis bi ñaata la. 4 hmm. milliards la. 4 milliards du 650 millions. dañu jël 4 milliards ñu intervenir ci kaw ñu jox leen lépp ba mu des 600 millions ñu jël 600 millions yi consigné ko parce que xam nga xaalis ñu koon joxe mais 4 milliards lañ trouvé ci ñoom. dégg nga baax li ma wax loolu dinaa ci ñëw sax ci yërim poste parce que dama ciy bind. 4 milliards en en liquide 4 milliards c'est-à-dire demee def descente ci ñaari boutique yooyu 4 milliards lañ fa fekk argent liquide dañu commencé di ko compter euh, tisbaar ba guddi mujj ñu dem jëli jigéen joo xam ne ni ci benn banque lay liggéeyee parce que ñi ko doon compter ay gendarme lañ dafa yeexoon ñu dem jëli benn jigéen buy liggéey ci benn banque pour mu ñëw compter leen ko. te xaalis la boo xam ne duñu ko retracer ci comptabilité. fenn caisse noire la liquide la. dégg nga wax bi ci benn libane benn famille libanais benn jour waa léegi ñi fi nekk muy tubaab yeeg libanais ak yeneen sénégalais yeeg yooyu mais ñaata xaalis la ñuy sàcc réew mi par jour mais mun na loolu c'est extrêmement grave c'est-à-dire imagine-toi somme d'argent yi nga koy gañee ci réew lépp nga koy jël di ko def liquide feeñul ci benn comptabilité lépp ñu jël ko ci même jour ñi def ñooñu kon ne di dox tranquillement et puis. waaw déglu déglu daxaar ma wax la parce que il faut sénégalais yi xam lan moo tax affaire bi garaaw parce que ñenn sax mën nañ jàpp mais Cheikh Yérim Seck lu tax muy wax ci lii lenn rek a tax c'est-à-dire li ci état sénégalais di ñàkk ci sàcc xaalis réew mu mel nii nga xam ne amuñ école yu baax tey éducation nationale li tax ñu gën a yokk pousse pousse njàng bi xam nga lan la. ñàkk moyen. déedéet du ñàkk moyen de tey boo ubbiwoon léegi nawet bi école yi abri provisoire la dafay taw. kenn mënu faa jàng dégg wax bi ay nit benn jour ñu précautionné fekk ñoom 4 milliards yu ñu sàcc yoo xam ni benn Sénégal du ci am benn dërëmu lempo benn jour benn commerçant en fait benn entreprise benn groupe muy group faraise nga xam ni mooy Mohamed faraise Hassan Farez Mehi din faraise nga xam ñoo moom Kiren moom Presea def fer à béton et cetera. léegi ñeneen ñi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi di def business di sàcc xaalis bu toll noonu état bi du ci teg loxo du ci def dara pendant ce temps nit ñi amuñu école lu ñuy jàngee buñ demee ci hôpitaux yi da ngay gis sénégalais buy dee ndax 10 000 francs parce que amul lum jëndee chloroquine parce que dafa paludisme maanaam dafa sibiru mu faatu waaye léegi loolu duñ ci wax ci réew mi léegi ñun journaliste bu ñu waxul ci loolu lan la ñu war a wax. ku ci wax ñu ne dañ laa jënd. ñun dañ laa jënd mais man bu ñu doon jënd xëy ñële ñoo yor ñële kay ñoo yor xaalis bi jënd ñëpp ba kenn mënta wax jënd ñëpp ban leen jël leen ak xaalis bu toll noonu ñoom ñëpp ñu kon di dox ñu jël benn doomu jigéenu jàmbur bu ndaw tëj ko kaso ni dafa jël. cent vingt six ndaw si moo tax ndaw si moo tax ñu xam yëf yi parce que dañ ko jël ne ko da sàcc téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-benn man sama yoon newul ci moom parce que man défendre ma kenn ci dossier bi mais bu dul woon moom kenn du xam luubal yi nga xam ni famille Farès lañ fi def ndaw si biñ ko jàppee mun leen déedéet yëf yi demewul noonu ñii dañuy jël xaalis bi di ko yóbbu bis bu ne dañuy compter xaalis bi gars yi ni ko ana say preuve mu indi ay preuve am indi carnet wane xaalis bi génn yëpp ñu compter ci karne bi ci li mu bind rek ñu gis ni 2 milliards 800 directeur de société bi ki nga xam ne moo tudd. Christian Samra Christian jël na ko ci. amul benn justification ñu laaj ko mu ni da ciy def ay dépenses exceptionnelles. léegi toot léegi loolu wax ko ci wolof. <laughs> dépense yi ñu xaarul. <laughs> yaa ngi lay mu di loolu boobu dépense yu ñu xaarul la dégg nga. déglu ma xam ne mel ni ku yor caisse noire. déglu ma rek ñu ni léegi parke bi nee na nee na nañ ko def sous mandat de dépôt maanaam nañ ko jàpp daal ba pare kenn présenté wu ko juge d'instruction bi xam nga loolu yabaate la nga ni kii nañ ko jàpp ba pare te yóbboo ko ci juge bi ko war a jàpp xam nga loolu yabaate la. après ñu jàpp ñu jël ndaw si. ñu jël ndaw si tëj ko kaso. xam nga Sénégal da xam nga yooyu vraiment yooyu ku mu révolté wul pour man amoo benn sens de la justice. parce que dafa yomb trop famille faree jor xaalis bi di corrompre nit ñi justice beeg ñëpp nërmeelu gars yi gis fee yu grave nii fisc beeg ñëpp mais attends le minimum le minimum pour man xaalis bu mel nii nga jàppee ko ci nit liquide loo xam ne xaalis bu ñu doon sàcc la mais le minimum nga ubbi procédure bi quand au moins même bu dul dara sax 4 milliards yi ñu jàpp mais redressé ko ci loolu même bu fekkee nag sax benn yoon boobu lañ ko xam nga déjà wóor na ne mosuñu koo def benn yoon parce que courtier bi yóbbu xaalis bi nga xam ne def na quinze ans bati plus dañ ko enquête mu ne ay année ngi nii chaque jour mu yóbbu xaalis bi waa léegi. le minimum te xaalis bi amul comptabilité. amul compta amul comptabilité dañuy jël tuuti def ko ci jël li ëpp ci xaalis bi jaare ko ci surcoût yooyu. xam nga la moo tax américain yi defal ndànk bala may agsi ci américain yi léegi yow nga ni yow nga ni justice moo la tax a jóg nit ki def loolu parce que kii sax xam nga ndaw si dañ koo tuumaal mu ni jëlu ma xaw ma moo jël xaw ma jël loolu yàlla la mais koo xam ni daf ni man maa jël mais dama ko def ci dépense exceptionnelle kooku kon ne di dox maanaam ñi nga xam ne ñoo moom société bi muy Mohamed Farez Hassan Farez den Farez continuer di dox ñoom ñëpp nga bàyyi leen jëm jël kii tëj ko kaso fisc bi taxaw gis loolu xam ni lii xaalis la boo xam ne xaalis bu ñu sàcc la parce que xaalis bu bu doon bu doon xaalis bu ñu luubal dañ koy dugal ci comptabilité société bi mu am ay acte ak yépp ñoom defuñu kii pour redresser leen pour au moins xool nan la ci état bi moom ak li ci état bi moomul n'est-ce ñu pare ci loolu lépp lépp lépp famille boobu dafa am kenn ku ci bokk ku tudd Abbas Fawaz koo xam ne américains yi enquête nañ ko ba gis ni dafa bokk ci ñi nga xam ne nii ñoo jëla alal senegal di ko yóbbul benn nit bu tudd Hassan Nasrallah nga xam ne moo jiite. Hezbollah Hezbollah libanais kooku trésor américain nañ ko fiché Amérique fiché ko ñoom seen famille ñu ci bari sax mënuñoo tukki seen famille bépp tout la famille fare ñi ci mën a tukki ñu tuuti lañ américains yi bi ñu déggee xaalis boobu. am dépêché benn agent FBI mu ñëw pour loolu parce que xam nga loolu da ngay tiit déjà ñii ñu ngi leen di jiiñ dëmm ñuy soccee yoolu <laughs> yeeli liir yeeli liir lu leen koy wax donc américain bi ñëw def enquête de près enquête boobu nag li ci gën a grave loolu presse bi waxaguñ ko au fait parce que dafa am ay écoute satellitaire au fait xam nga nit ñi dañu yaakaar ne tant ñu ngi wax wax ceeb rek kenn dégluwu leen mm-hmm. américain yi dossier bi dafa sérieux ci ñoom ba nga xam ne ay écoute satellitaire lañ def xam ku nekk li nga def am ay autorité Sénégal fii yoo xam ni. ils sont impliqués elles daf leen nag impliqué corrompre leen. yaa ngi dëgg américains yi am ay preuves acté ko te boo moytuwul di nga toog fii Amérique décerné ñetti mandat d'arrêt international contre trois autorités du Sénégal loolu maa la koy wax tey. ñetti mandat d'arrêt international d'arrêt international cest problème bii bu réglé ba Sénégal leeral ko. su situer responsabilité ñuy war a sanctionné ñu sanctionné leen loolu bu amul Amérique dina délivrer trois mandats d'arrêt internationaux yoo xam ni trois autorités sénégalaises yu am importance lay ciblé. te loolu te loolu may mun a nekkul suñu ginnaaw. suñu kanam la nekk.